kilifa gi sax laa soxla salaamaaleykum. waaw waaw Uppalde. Uppalde. waaw yow laay waxal noo tudd sax. Moussa Moussa yow Moussa euh, xaw ma Moussa xaw ma Moïse. yow laay nga lii lii da ngeen ma bëgg a concurrent. moo tax ngeen ki ngeen jéem a waaye loolu xam ngeen man maa ko fii si koñ bi dugal ko si koñ bi. da ngeen ma bëgg def wujju man nag nekkuma. jigéen buy sey sëy nekkuma jigéen bu am jikkar nekkuma jigéen bu umbu nekkuma jigéen bu am doom dégg nga koy wujje day fekk mu umbu wala mu takk wala mu sey ndax café yii man maa ko euh, créé fii di wax ku ngoon ku ne na indi barlaada barlaada nit ñi indi barlaada yi may jox café yi di séddale yàlla moo tax dégg nga lu tax ngeen ñëw ba sama wet ngeen defar cin tamit pour def séddale café lu tax loolu. ah da ngay tooñ père. teel na koñ bi. waaw yow kese dëkkoo. waaw dëkk say morom dëkk fii ñëpp fii lañ dëkk. waa te ñu ne ay Baye Fall ay café nii mooy loolu lañ chaque at dañ koy def. man Baye Fall laa tam. yow waaye dama Baye Fall fenn ma la gisee nii. lan. yow Baye Fall wani xam nga loo ngay wax nii ak li may wax bokkul ndax xam naa li leen si dugal. am ay majjal. waroon ngus sa kaalis soo waroon mofta ngeen di wàññi kaalis denc. loolu moo leen si dugal. ma wax man ay majaas taxu ñoo jóg. majaas taxu ñoo jóg dañuy xëy di wàcc jël suñu xaalis di ko def si café gi. na ngeen fexe nag ba ne seen séddale café na yem seen koñ yéen sama parluwa bii. sama parmi waa côté droite yi bu leen ko laal. yow xanaa doon Baye Fall père. la père. waaw kon ñu yëpp seen koñ la. waaw dinañu xam jàppal booy jàppal paa man maa la wax lii. boo nekkoon Baye Fall ah, man sa yoon nekk si loolu. waaw. kan nga yëngal nii yow danga maa bugg pontoo wala danga may ñaawal. bu ma jox addi nga bu ma rusul woon seen waa kër dinaa la dóor. waaye jógal fii ngay wax addi. waaye yow xam nga lii moo leen si dugal yëngal yëngal bii moo leen si dugal waaye loo ngeen yëngal yëngal ju ngeen yëngal côté bële ku fa yëngal ma yëngal la. waaw man man man ñëpp Baay Faal lañ ñun ñëpp gam nañu sëñ bi yow danga maa uppale si sëriñ bi ñëpp xam nañ sëriñ bi. sëriñ na la tudd Amathou. si lan sëriñ yaa ngi indi affaire yabaate yi yaa ngi indi affaire yabaate laa yem si yéen nag. ngeen yam ko si man nag territoire bi rëdd ko fii bu ngeen ko rombee jam leen côté boole sama côté fii ku ko laal ñun ñaar mbaay waaye maa ngi nii sa mbaay eh ñii danay damay wax ak ñoom de ñii damay wax ñoom parce que li tax may wax ak ñoom xam nga dama di créé lii ma defar sama yaa créé initiation bi waaw lan laa wax da sa diw jënd say mbir pour pour pour sa diw nit ñi ñoom ñu dem wut seen cin yi. nee nañ dañuy Moussa ñoom ñii ak ñoom El Hadj Malick ñoom Baba Dia. ak Baba Galle ñoom ñëpp ñu dem dem ne dañuy créer café. ah ñoom léegi nee dañuy topp suñu ginnaaw. waaw lu fi lu fi ja wadd bañ ma màcce. lu ñu ko giraas lan la ñuy ko giraas. waaye ñii dinañ ma rey tey wala ñu rey ma. déedéet wallaahi dinañ ma rey tey. Ah. jaru ko xam nga tax ma ne jaru ko. nañu ma rey tey cin bokkul safin. yow xalaat bi yaa ko xalaat ba weer wi ñëwagul ba weer defal ñaan naa la ci weeru koor bi ñaari fan ñu am saw bul xeex bul xuloo. Eh. bàyyi leen ñu café seen café. bàyyi leen ñu café seen café déedéet sax dañuy dem déedéet jono ñu rey ma wala ñu rey ma tey mbaay def leen dànk ma la wax def leen dànk wopam mbaram wopam wopam mbaram wopam mbaram mbaram kaw adam po wallahi yaba ñaama mi yaba ñaama mi way leen ko woppam woppam waay woppam waay woppam moo yaatu Mamadou Bako woppam moo Bako Mamadou Bako Bako dara dama la ko ñaan eh. dama barke ñaari fanu koor gi loo jàppoon nga Bako yow bi ngay café ñoom café wuñu ñun bi ñuy jóg ñoom ñu ngi nelaw concurrence nag looy dundal ak na nañu café seen café ñun ñu café suñu café eh. ñu xool mbooloo kan moo gën a neex la café ya yow saw dimbali ma nga jooda eh. yàlla ay ci póotum bur ñun suñu innovation bu bees bi ba nga koy xalaat ña ngay tëdd di nalaw cin bokkul safin nan ñu bàyyi ñu café ñu café ñu xool ko a saf café yéen nag café leen ñun ñu café ngeen xool ko gën a la café bu ngoonee xale yi kan la dar ci café saw loolu ay résultat bi. jaayeen loolu rek ay résultat bi jaa tun la lay ñëwal. jaayeen